bu bees tàq la bu ñu door boo xam ne ñu ngi ko fas yéenee boole ci jataayu xam-xam yi nga xam ne danañ ko tàmbali mbokk ci li ñuy dund dundalee weeru koor gi incha allahu taala tey nag incha allah ñu fas yéenee tàmbali ab jataay boo xam ne day doon jataayu tafsirul alquranul karim muy loo xam ne lu am solo la ci buñ xamee dayo bi nga xam ne mu nekk ci alquran ak li lim làmboo ci ay maanaa te muy loo xam ne julli yépp lañ ko war a xam di ñaan suñu boroom defal ñu tawféex bañ tàmbali ko ci alhamdulilahi rabbil alamin tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim waaye yëggalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin tafsirul quran nag den loo xam ne ni nga xamee ne eh, jullit bi wurta xam li ko war ci ay faratay jëm noonu noonu noonu la munta ñàkkee li nga xam ne moo nekk ci alquran tey mm, mel ne ab leetar boo xam ne suñu borom da ko ko yónnee muy lu mu war a xam alquranul karim kirim tay ci lañ fassiyene tambali tàmbali ci ay bind yo xamne ay jangalante lay doon ak ay leerlante lepp nak doon lo xamne du genn waxi borom xam-xam yu jitu ya te mu doon lo xamne ñoom ñoo gëstu alquran tafsir ko bind ko ñun ñu ñëwaat lañ bindoon ci arab ñu diko leral ci wolof ngir ñi nga xam ne eh, jotté ci arab yoy di ko jëriñoo nga xam kon dëgg-dëgg li ñu def daanaka du weesu nettaliwaat waxi boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom seenu xam-xam rafet na bañ tafsir alxuraan ñu jëlaat lool ñu waxoon di ko firiwaat ci wolof. alxuraan nag doon téere bu màgg boo xam ne suñu boroom jox na ko day bu rëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay xadisam bëri na loo lool lu muy nettali dayeb alxuraanul karim wax ne ki gën ci yéen mooy ki nga xam ne jàng na alxuraanul karim ba noppi di ko jàngale. te kon loolu day wane ne alxuraan ndakate kon mooy li nga xam ne ku laal ci moom yaay gën ku ci moom ndax yàlla suñu boroom moo ko jagleel ngëneel loolu ci diggante téere yi nga xam ne moom la mas a eh, wàcc téere yi wàcc yëpp alxuraanul karim la ci tànn mu téere bi ci gën la newoon te téere yëpp yàlla suñu boroom dajale ko ci téere boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gën ci yéen mooy ki nga xam ne eh, day jàngale téere bi te di ko jàngale waye yëmul fofu yalla suñu borom neena na bi saasam neena ci téere suñu borom bi na ngeen diko ko fonk te diko ko ndax yamal xiyaam day ñew di di ràmm aw ñoyam di ram aw ñoyam buñ ko waxee moy di leen tinu mom alxuraanul karim waye yalla suñu borom def na ne alxuraanul karim ji ëllëg yamal xiyam ci hadith di ko yonent saasam waxe waxee ëllëg dañuy wo borom alquran ne ko del jang alquran di yek ci daraaje yi yi fosam njàng yam rek fa la sa daraja di yam kon loolu di lu màgg hamne, xam ne day wane ne alquran lu màgg la lu mat a fonk la alquranul karim buñ di ko tudd benn par benn euh, mën na cee def ay émission yu dul jeex moo tax ku ci bëgg a euh, xóotal da ngay dem ci ñi nga xam ne waxtaan nañ ci ngëneelu alquran képp kon loolu ab tënk la rek ci daye bi nga xam alquranul karim am ko fi di alquran Euh, mun day lu munta ñàkk ndax alxuraan day làmboo ab ay digleeki tere làmboo ay waare làmboo ay nettali làmboo yu bare bari yoo xam ne mu ne su ko ñàkk xam te loola dafa nekk ci làkk yoo xam ne nit munta tëb tëb xam ko kon nag firi gi ngir nit ñi xam ko boo ko xoolee day dugg ci jàngale waaye nit ci bu ci seen seetlalee yéeneem mën na cee am tuyaaba ju kawe waaye it nekk yi nga xam ne boroom xam-xam yi uh, ñu ngi koy jàngale nekk nañ ko di ko jàngale alxuraan ak di ko firi loolu du tax ñu ne ah comme ñoom kat ñu ngi koy def doy na jëru ñun ñu ndax dañu jàpp ne rek ñoom loolu ñu def bëgg lu baax moo leen ci bàyyi te lu baax du day mukk lu gën a bëree rek gën a baax te it nit ñi kenn ku nekk ak saw yoon ak say gis-gis ak say leer ak sa li ngay leerale waaye nit ñi kenn ku nekk it ak sa yéene te suñu borom man na la ca fay bu sa yene selle lam fa yon gaay gaay la jitu mbalu gop tay jamono ju nek nit ñi di aajo deg alquran jamono ju nek kon day aajo it ñu di len leral alquran joju bañ man ko deg waye bu nek bu buñ ci histoire islam bi nga xamne suñu borom yebal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba suñu jamono tey danañ gis ne borom xam-xam ñu massa fonku fiir lañ ta fonku gi moy wane li nek ci alquran nit ñi dañ cee wara jot suñu borom day wax ci alquran lu ben lu dul ñaar ne ñi xana duñ seetantal li nek ci alquran xana duñ tadabbur li nek ci alxuraan te tadabbur ñu ko wax moy nga xol ay bi jangat ko génne li ci nekk jëriñoo ko te lolu ñepp mënuñ cee egg kon euh, leeral ko yombal ko ba ñepp mën cee jëriñu day day mujj doon farata kon loolu moo war doon tey ñu ne nag dañuy tàmbali ci biir njàngale mi ñuy jàngale njàngale moo xam dañu koy jagleel firi alquranul karim te tuddee ko tafsirul quran alquran jooju nag buñ buñ lay tënkal fi mu jaar ba egsi ci suñu jamono ji si ci suñu loxo maanaam ñun jamono ji ñu dund kaamil alquran yi ñu yor di ko jàng ci histoire buñ lay nettali fa mu jaar euh, ñun ñëpp umpale wuñ ne alquranul karim suñu borom moo ko wàccee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaare ko ci ndaw la ñuy wax jibril alquran jooju nag diir bi mu wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, diirum ñaar fukki at la ak ñett ci li gën a eh, siiw am na wax sax ñaar fukki waaye loolu day aju ci wuute gi borom xam-xam wuute ci dundu yonent bi sallallahu alayhi ndax ñenn ñi dañuy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi dund juróom-benn fukki at am ñu ne mi ngi dund juróom-benn fukki at ak ñett ndax bi mu doon bi mu am ñeent fukki at la ko suñu borom def ab yonent alxuraan ci ci ci bi mu am ñeent fukki at ci la alxuraan commencé wàcc ci moom ba ni mu amee juróom-benn fukki at ak ñett kon ñaar fukki at ak ñett mooy diirub bi alxuraan wàcc ci moom fukki at ak ñett yu njëkk yi mi ngi ko nekkoon Makka fukki at yu mujj yi mu nekk ko Medina alxuraan jooju nag la ca njëkk a wàcc ci diirub ñaar fukki at yi ñett mooy suuratul alaq ñun ñëpp xam nañ ko iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka lakram alladi allama bilqolam allama linsana ma lam yaalam loolu mooy li nga xam ne moo njëkk a wàcc ci alquranul karim bu ko defee nag la cay topp topp ca euh, borom xam-xam dañuy wax ne bi loolu wàccee suratu alaq njëlbéenu suratu alaq la topp mooy suratu muddathir yaa ayyuhal muddathir qum fa anzir yaa ayyuhal muzammil do caa topp ni ko noonu yeneen aaya ci ay topp di ca topp ba ni egsee ci لن يحن موت مدواتي نينا موي واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله أم نينا موي آية بمجي جسورة النساء أم نينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا هناك أقل لك واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله سيونا نمو مدواتي على القرآن الكريم كان آه يي موي لنجاك واتي أقل مدواتي ديرو نعرف كي أتنجت يوم نحن نك القرآن واتي نكتين بصلى الله Eh, bi fi yonent bi sallallahu alaihi wasallam di nek alquran nekkutoon ab Kamil bu dajé mu do mu wana a lo xamné da ngay jël teg sa loxo ne li kat kamil la wayé alquran dafa tasaro won tasaro gi mooy dafa nekkon ci ay ay yah ñu bind ko ci ak ay eh, ay ay dat garab ak ay der man kenn ku ne dal fo meuna bind alquran bind nga fa lenn ñi mokal ko ndax jamono yonent bi sallallahu alayhi wa ci mujjug jamono alxuraan lépp ak fi bu fi mu fi mu yem alxuraan yépp ci jamono yonent bi sallallahu waaye nag dajeewut ci benn bërëb maam nekkul ab kaamil buñ boole nga xam ne kon yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu fiy jógee alxuraan lépp mat na nag ndax ab kaamil nekkoon na fi déet wala déet ab a woo naan lii ab kaamil la bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa jugee bàyyi fi saxaaba yi nag ci lañ dajale alxuraan ci jamono jamonoy bakkar te jamono Aboubacar bakkar waxna la ne bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam jóge na fi bakkar mu uutu ko commencé eggale xéx yi mu doon def di ubbi l'islam ak ñu mel am xéx bu ñu wax euh xéx xara yamama xara yamama euh ñu doon xéx ak ku ñu wax musaylimatul kazzab mi wutu won ab yonent xéx ba metti na metti go xam juróom-ñatt téeméeri sahaba faatu nañ ci ci li borom xam tuddu saxaaba yooyu buñ faatoo lu ab lim am ñu ne ñeen fukki nit ci ñi mokk la wax faat nañ ci ci la Aboubacar nag ci la Omar ñëw ci abu Aboubacar sidna Omar na ko kat comme yow yaay kilifa julli ñi fi ñu toll tee nga dajale alxuraan ji fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam woon soo ko dajalee kat loolu moo gën a wóor ndax li ma gis bu dëkkut bis mën naa ñëw ñi mokkal alxuraan faatu so booba alxuraan mën na fe mën naa nax saay bi mu ko waxee loolu ci njëlbeen Seydina Aboubacar ñu ngi ko woon a def ndax dana ko man nan laay defee loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defu ko mu ne ko ah defu ko day wax dëgg yàlla lu baax dong la maanaam lu baax rek la ndax dajal alxuraan ji sàmm ko euh, loolu moom donte yonent bi saa sam defu ko it lu baax la ci la nekk di ko di ko di ko ci wax di ko ci wax ba Aboubacar mujj xelam daal ci mu doog ko def bi koy def. ñu euh, ko la bi ñu dajalee alxuraan ji ci jamono abu Aboubacar. dañ koo dajale ci benn kaamil kenn ku nekk rek la nga am nga andiko kenn ku nekk rek la nga am nga andiko ko ñu dajale ko ci benn kaamil kaamil boobu ñu Seydina Aboubacar daal ko yor bi nga xam ne yàlla dogal na Seydina Aboubacar jóge fi nag kaamil bi toxoo ci moom dem ci Seydina Omar mi nga xam ne moo nekk ñaareel xalifa bi mu fi jógee nag doomam ñu Xafsa yoroon ko Seydatna Xafsa bokk na ci soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñëwee ci jamono Seydina Ousmane moom it mu defaat beneen liggéey ci dajale alxuraan liggéey boo xam ne wuute na ak liggéey bi nga xam ne moom la Seydina Aboubacar defoon ak Seydina Omar ndax moom ni mu ko defee mooy dafa am ko ko jox xalaat moom it ku ñuy wax Xusayfa ibnul Yamaani bokk ci saxaaba yi ne ko fekk dafa dafa am benn xare bu mu demoon. fi xare boo xam ne euh, mooy fi ñuy wax xaswatu armina arminiya am xare la boo xam ne mi ngi amoon fi ñuy wax arminiya euh, sayidna xusayfa bi mu ñëwee gis gis julli ñi di wuti seen biir te leen war la waral wute ga mooy wuteeg alxuraan nuñ koy jànge parce lu bëri jàngin te jàngin yëpp lu wér la wute gi ñu wute jàngin kenn ku ne gis na lii nii lii la kenn ku ne gis taawil yi ñu wute ci taawil ba nar xeex nar cee deret ci la ñew nak ci sayyidna usman ci jamono jooju ne ko nag euh, xettalil xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax boko defut kat xex ak rayante mëna am ak réeroo mëna am ci la ko nak wax lolu sayyidna usman taxaw ci taxaway bu am solo dal di dajale kaamil yi daal koy manam daal koy copier wat copier bes ay waaye bi koy copier copier bes nak dañ ko dañ koo da leen a digal ñu lakk yi nga xam ne maanaam bokkut ak yi nga xam ne moom ci jëmmi boppam moo ko maam moo ko validé daal ci gàttal ndax kaamil yooyu ñu dajale woon maanaam fekk jamono yonent saa alxuraan ji tasaaroon waxoon naa ne jamono Abubakar dañ ko dajale woon mu doon kaamil kaamil boobu nag njàng yi wuute yi taxoon Seydina Ousmane daal di bindaat kaamil bi ci njàng yi wuute daan legi léegi leneen leneen lu ma yor nañ ko lakk wala ñu xotte ko ci lañ lakkee kaamil yooyu biñ ko ke yàlla dogal euh, mu daal di bind ñeenti ñeenti kaamil mu daal ci copie ñeenti copie yóbbu ko ci dëkk yu mag yi ci jamono jooje benn mu yóbbu ko euh, Égypte benn bi yóbbu ko Iraq benn bi yóbbu ko Cham benn mu euh, bàyyi ko Madina nga xam kon kaamil yi ñu yor tey ji ni nga xam ne mooy yi ñu jàngee mooy kaamil ba Seydina Ousmane copié woon ko fenn fu ne nag mu yóbbu fa ab kaamil donte xëy na fenn fu ne borom xam ne wax ne kenn kenn ku ne dalaa yut kaamil boo xam xëy na xaw naa wuuteeg sa morom ci jàngin waaye lépp ngir wan la ne lépp alxuraan la mën na ne alxuraan lu mu wuute mm, kii di jàng xafs kii di jàng wars kii jàng nangam eh, yëpp benn alxuraan la rek kon alxuraan ci tënk loolu la demee woon ci njëlbeen benn alxuraan amutoon ay tomb amutoon ay masque waaye dañoo dem ba jëmi jamono arab yi comme arab ñoom xamoon nañ loolu waaye dañoo dem ba lislaam yaatu julli ñu dugg ci yu ni ñu ñu bokkutoon ci ñoo xam ne arab bi seen cosaan dugg ci yu tax na ñu dem ba mujj dugalaat ci ci lislaam bi si fa am ci xam-xamu lislaam ak yokkute ak bind yu ni mel ci loolu ci lañ tombé alquran maas ko ko ngir ñëpp mën koo jàng wax nañ ne liggéey boobu ki ko njëkk def mooy alxajaaj ibnu a althaqafi ci ndigal wax abdul malik ibnu marwan wax nañu moo njëkk a tomb alxuraan moo ko maas am na ñu wax leneen am ñoo xam ne dañuy wax ne yaxya ibn yaxma yaxya al yaxya ibn yaxmur yaxya ibn yaxya moo ko def am ñu ne abul asad ad dawali waaw maanaam lu gën a wér mooy xajjaaju mu yusuf moom wér na siiw na ci lool ci ne moo tomb alxuraan maas ko ñi ne yaxya ibn yaxmur man maa jum ci tur wax ne yaxya ibn yaxya waaye yaxya ibn yaxmur ñi ne abul asad ad dawali moo ko maas tomb ko nga xam kon jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam kaamil ñu bindoon wala alxuraan yi ñu bindoon amutoon ay masque amutoon ay tomb ne baat bi boo ko xoolee dana mën a am ay jàngat yu yu waaye téere arab yi xamoon nañ baat bi baat bu nekk mm, dëgg-dëgg lañ ci jublu waaye ci jëmm jamono nag ci lañ ko tomb masque ko ni ki noonu alxuraan jooju saar yi ak aaya yi ni mu toftaloo xam-xam wax nañ ne ay yi ni mu toftaloo aaya yi nga xam dañoo topp dañoo toftaloo ci misaal nga jël alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin ba mu jeex noonu mu toftaloo dañu wax ne tawxiif yi tawxiif mooy loo xam ne nekkul xalaat nit wala dara ci suñu borom la jógee bu dee nag saari ci seen biir ci la ñu wute ñi ne tawxiif yi la ba tey ñi ne maanaam borom xalaat la rek boo maanaam saxaaba yi ñoo ko toftalee noonu waaye moom al saari ni mu toftaloo ci seen aay ni mu toftaloo ci biir saari moom sax na ci sax na ne ak wuute amu ci ne maanaam ci suñu borom la jóge yonent bi saasam jàng na jàng na ko ci noonu loolu benn loolu ñaar loolu ñett kon loolu ak tënk la alxuraan nag lu bëri ay tur la waaye bokk na ci tur yooyu tur yi ñu miin te mooy alxuraanul karim bokk na ci tur yooyu alfurqaan bokk na ci tur yooyu alkitaab bokk na ci tur yooyu alzikr te arab day wax ne gis lu am ay tur xamal ne lu am dayo bu mag la lu mel ne alxuraan nga xam ne mooy tur yu gën a siiw moom nga xaw ñëw ci alxuraan alfurqaan bokk na ci ñëw na ci alxuraan alkitab bokk na ci ñëw na ci alxuraan azikr bokk na ci ñëw na ci la quraanun karim tabaraka lu du benn euh, lu benn lu ñaar haaza zikrun mubaarakun anzalnaahu ak lu benn lu ñaar ni ko noonu baatub kitaab alif laam miim zaalika alkitaabu yi ay turi alxuraan li mu firi mooy firi lu dajale dañuy wax ne masdar la mu jógee ci baatub qaraa yaqri wax naa jamaa maanaam baat qaraa yaqri ديفري جامع ديفري دجال خرا مر اخر نكو تودي القران خرا كو تي لنجير دون جيم دون لو دجال امنا ديت مصدر لا تي بار قرا جي في جانغ لو ليب اي واخ لا بودي قرا يقري لو مين لا تي لا قرب لو مين واي كيف لي دون واخ نان صاحي هل ريت او سمعت براع رد في الضرع ما قرا في الحلاب ما قران يعني ما جمع امنا mi ngi jóge ci xaraa yaqra'u nga xam ne masdar la su boobaa ñaari yëpp ay wax la alfurqaan mi jóge ci baatu farax gi firi teqale na alxuraan doon nekk gi mu nekk loo xam ne teqale diggante dëgg ak safaan moo tax ñu tuddee ko al alfurqaan tabaraka alladi nazala alfurqaan ala abdihi li yakuna lil alamina nadira am na ci alxuraan suratu furqaan zikr ba tey ci tur alxuraan la mooy luy fàttalee luy waare kon ba tey ci la ci tur yi la الكتاب موي فري اب تيري موي لوم بنت كتاب لي فري تيري نعم داي يور مانام فعال لا واي معنى مفعول لا يور مام كتاب لا واي معنى مكتوب لا معنى عرب لي فار دي ديف لول دي تيغي بات فعال واي دغ دغ معنى مفعول لا لو ميني امام معنى دغ دغ موي مؤتمن به لو ميني هبات او من برنا كون آه، فعال بمعنى مفعول برنا خم نكو لول تي لا كو alxuraan jooju nag na nga xam ne saar yooyu saar yi ci alxuraan dafa wuute ay jamono yu wàcc moo tax sax borom xam-xam yi di séddale alxuraan ji ñaari xaaj naan la xaaj bi xaaju makka xaaju makka la xaaj bi xaaju madina la maanaam ñaan xaaj bi makki yee la mooy makka la wàcc wala xaaj bi madani yee la mooy madina la wàcc loolu nag nattuwaay bi ñu koy nattee mooy dañ naan la lépp loo xam ne. wàcc na ci jamono ji yonent bi sallallahu alayhi di nekk màkk màkk dañ koy aj ci xaaju bi nga xam ne mooy xaaju màkke ak donte sax ba muy wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu nekkul ci moom mën naa génn na màkk nekk na ci eh, feneen nekk na ci tukki wala ci xaar yu mel ne alxuraan ji moom su boobaa donte jamono jooju wàcc ci moom nekkul ci biir màkk waaye su boobaa dañ naan lii xaaju màkk la bu dee li wàcc ci madina mooy loo xam ne jamono ji mu nekkee madina la ak donte sax bi mu wàcc moom nekkul ci biir madina moo tax ci kaamil boo dee xool nga gis ñu ne suratu nangam makkiyatun wala nga gisul nangam madaniya loolu moo ko waral waaw ànd ak loolu it léeg nga gis aw saar woo xam ne makkiya la maam makka la ba noppi ci biir am ay aay yoo xam ne madaniya waaye loolu bëriwut li mu am bëriwut te li mu bëri ba mu néew néew ne dañ caa wuute waaye daal ci gàttal xamal saari alxuraan yi dañ koo xaaj ñaari xaaj benn xaaj bi makkiya la benn xaaj madina alxuraan yëpp nag boo xoolee téeméeri saar la ak fukk ak ñeent. téeméeri saar yeeg fukk ak ñeent borom xam nga tudd nañ ne ñaar fukki saar ak ñeent yii wala ñaar fukki saar ak ñaar yi may bëgg tudd madina la wàcc maam madaniya la boo ko xoolee nga gis ñu ne sóoratu naa nga mooy li wàcc ci jamonoy madina ba ca jiitu mooy saaru baqara mooy alif lam zalika alkitaabu aali imran ci la bokk nisaa yi lanfaal tawba mooy baraa نور الأحزاب قتال الفتح الحجرات الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم إذا جاء نصر الله والفتح وانا ني ساي موي ساري nga xamne ño ñoo wàcc madina ci jamono medina ji am saar yoo xam ne nañ ndax medina la wàcc wala màkk te yooyu fukki saar la ñett mooy yi ma bëgg a mooy euh, faatix bu ñu wute bu nee nag wuute nañ ci ne madina la wàcc wala màkka am ñu ñi dañ naan madina la wàcc ñi ne màkka la wàcc am ñu ne daa répété waaye fukki saar yooyu ñett nga xam dañoo wute ci kan la wàcc alquran umul euh, quran ci la bokk mooy euh, suratul fatih ci la bokk وايد سورة النحل تلبوك وايد سورة الحج تلبوك وايد سورة الإنسان تلبوك وايد سورة المتففون تلبوك وايد سورة القدر تلبوك وايد سورة البين ما لم يكن تلبوك وايد سورة الزلزال إذا زلزلت الأرض تلبوك وايد سورة الماعون يعني أرايت تلبوك سورة الإخلاص تلبوك وايد سورة الفلق من القرآن بالفلق تلبوك سورة الناس تلبوك fukki saara ñett yi mooy fukki saara ñett yi nga xam ne wax nañ Euh, dañoo wuute ñu ne la ñu ne Madina la yi ci des nag yi ma tuddut jàpp ne mooy yi nga xam ne mooy moom mooy saar yi aju ci Màkka kon nga bàyyi xel ne dama wax ne alxuraan téeméeri saar la ak fukk ñeent téeméeri saar ak fukk yooyu fukki ñaar fukki saar ak ñeent moo ci Madina fukki saar ak ñett lañu wuute ndax Madina la ak Màkka la ñaar fukk ak ñaar nag boo ci dollee fukk ak day doon fanweer ak juróom. fanweer ak juróom yooyu nga nga dindi ko ci téeméer fukk ak ñeent kon la cay des mooy saari yi wàcc màkk nga xam ne ko alxuraan yëpp noonu lañ ko euh, catégoriser waaye saar yi nga xam ne dañoo wàcc wàcc màkk ak saar yi nga xam ne dañoo wàcc madina dañoo am ak wuute ci ni ñu làmboo ak ni ñu bindoo ak ni ñu mel ndax xam nga yonent bi saa bi mu nekk madina màkka daanaka mën nga wax ne foofu la si ëpp ay yéefar lañ ay musrikoona lañ julli ñu néew nañ foofa na muy waxee du bokk ak mu nekkee mari nga ne ñu ëpp ay moo tax saar yi nekk màkk yi wàcc màkk ay yi nekk wàcc madina booy xool ci biir da gis ne dañoo wuute saar lay faral di suñ borom lay faral di wax eh, yaa yuha naas yéen nit ñi xam ne day ay yu mel noonu yoo xam ne yooyu mooy bokk na ci ni ñu koy xamee mooy saar yi wàcc màkk bu dee yaa yuha lisina amu e eh, yéen ñi gëm maanaam foofu julli ñu bëri nañ foofu wax day bokk madina saari màkka yi euh, day wàcc ci wàllu pas-pas ak wàllu gëm na war a gëmeek ak di dàggasante ak yëfar yi seen gëm-gëm yi ak di leen nettali xisay gaaw yi leen jiitu woon ña wedd woon yonente yi ak xisay yonente yi leen jiitu woon ak di leen euh, maanaam tëkku xay di noonu dee saaru medina yi mom day wax na day wacc di leral atay manam li ci ëpp ay atte lay ak di tontonteeg yahudi yeeg nasaraan ak di tuddu naafeq muhammadin al nafiq al muhammad lu nafiq ak xam màkk amutoon nga xam kuy woote kuy wone ak euh, ngëm te te nek ci mom ndax makka la fa neul mo ab julit wala yefar bu ñëwee medina nak am ño xam dañu dugg ci diine ji te fekk gëmuñ ko lepp ngir ragal ci seen bop ak xeyli na nonu moo tax ay yaayu ay baatu dàggasante naafeq yeeg tudd melokaan naafeq yu mel aay yi ci bëri madina la wàcc euh, moo tax boo xamee ne fépp fépp foofu fekk ab aaya bu tàmbali yaayu xel mm, ko am xamal ne madina la wàcc waaye fépp foofu fekk yaayu xel naas xamal ne màkk la wàcc yooyu boroom xam-xam dañ koy wax euh, di ko raaj mi ñeelee saari kon alxuraan ak noonu tuddal naa la dara ci ab wàccam ak histoire ci gatal tuddal la it ah, la téeméeri sar la fuk ak ñent léro lay période beeg ñu mel alxuraan nak nga baye xel ne ci teunk alxuraan yépp boko ko tënkoon xamal ne benn way rek la am moy wo nit ñi ñu jaam yalla ta wétal ko wo nit ñi ñu jaam yalla ta wétal ko mo waral alxuraan nga gis muy tuddu ajjana ak la fa nek ci xewal di tuddu sawara ak la fa nek ci mbugal lolou lepp ngir doom adamay yu xemmeem àjjana moytu sawara te loolu lay tax mën a am mooy ñu mën a jaam ñu jaam yàlla dëgg-dëgg tax alxuraan woote googu muy woote ci jëme nit ci jaamu seen borom soo ko xoolee gis ne woote balaa mën a am faaw ñaari mbir mooy nit ñi faaw nga leen yàlla gi nga leen di woo leeral leen ba mu leer seen bopp bu leer seen bopp nag nga tuddal leen lu tax ñu bëgg ko bo xoolee xol yëpp lol la manam leral jamu yalla leral jamu yalla ya yàlla yaa yor naa si nangam ak nangam bo noppee rek tuddu li tax ñu bëgg ko ay xéewal yi ci mëna jëlé jële mel waye tuddu ay mbugal ay tekk yo xam mo leen ci fekk buñ ko defut moo tax alxuraan foog foog sé ay diwe la ak ay tëkkoo ko def li am li tay boko day jang da naka dañuy and jamono ju ne sa suñu borom fu mu diggee juju ñi lu baax ma ngi tëkk way mooy ci ab safaan xam nga alxuraan mën nga ne ci tënk ci tënk daal loolu la mooy lim làmboo lépp mooy woo jaam yi jëme leen ci seen borom waaye nag lool li ñu tënku-tënk soo ko tojoon da nga naan mën a see génne juróom juróom-ñaari xam-xam mooy xam-xam bu lay jàngal sa digganteeg sa borom xam-xam bu lay jàngal sa digganteek yonente yi xam-xam bu lay jàngal bis lu aju ci ëllëg mooy bis penc yi ni xam-xam bu lay jangal atay xam-xam bu lay euh manam bu lay xam-xam bo xamne da lay fatali manam maanaam digg suñu borom lay dig ci alxuraan karim waye xam-xam bo xamne tekkoo suñu borom yi la xiss xam-xam bo xamne ne xisa yi la la jago kon juroom ñaar xet xam-xam ma nga wax ni mu nek ci alxuraan moy xel rububiyya way su digge tek sa borom jaamu len yalla nangam ak nangam xel mën na bu wat diggante si yonente yi topp leen yonente yi nangam ak nangam waaye bis penc yamal xiyaam nangam nangam nangam waaye it atte def leen nangam julli leen woor leen joxe asaka nangam ak nangam waaye tëkkoo maam dige ku def nangam am nangam ku def nangam am nangam ku topp yàlla nangam ku topp yonente yi nangam waaye tëkkoo ku mooy yàlla nangam ku ku wuteeg yonente yi nangam nekk sa bopp nangam waaye euh, xista yi fàttalikul nangam yonent yi sàngam li yonent sàngam nangam Firawna nangam diggante ak Moussa diggante yonent yàlla Ibrahima ak Namrut diggante yonent yàlla Yuusufa ak mbokkam ya yooyu ma xista yi nekk ci alxuraanu karim moo tax alxuraan nga gis muy faral di jël ab xista di ko nettali ñetti yoon maanaam di ko nettali ay yoon yoon te nettali googu dafa am lu bëri lu koy waral alxuraan nettali gi mu nettali histoire yi di ko jël di ko répété ni ku rek ne eh, suñu borom daa bëgg ab répété boo xoolee xisa yonte yàlla Muusa lu bëri lu mu ñëw ci alxuraan la boo ko tàmbalee ci bàqara bi mu ne jënte naa si day ñëw ay yoon yoon ci bàqara rek xisa bi yonte yàlla Muusa ma nga fa digganteem ak nagoo nangam ak nangam maanaam daanaka boo ko toppee alxuraan da nga koy topp di ko topp waaye fi ñu boo xoolee da gis ne répété googu suñu borom di répété dafa am njëriñ njëriñ li mooy euh, léeg-léeg mu tudd fii dara tudd maam tudd histoire bi fi am lu mu tuddaat ko fee am lu mu wax am lu mu ci indi kon ñaari tudd yu wuute yooyu fenn fu nekk am na lu maanaam loo fa dolli ko maanaam day tudd fii am lu mu bàyyi tuddaat fee am lu mu indi loo xam ne andiwu ko kon nga gis ne répété gi na njëriñ kon loolu na ci li tax suñu borom di répété maanaam di nettali ab xisam ci alxuraan lu mu bàyyi andi ko fii loolu benn la ci ba mooy bokk na ci sew-sew yi nekk ci euh, suñ borom répété yi maanaam nettali yi muy nettali euh, xissa yi mooy alxuraanul karim day làkku arab dañ ko euh, suñu borom te làkku nag làkku am dafa yàgg a siiwe ay xam-xam ay balaaxa yu ni mel léeg-léeg nettali gi mu nettali histoire bi fii tënk ko mu gàtt léeg-léeg mu nettali ko mu maanaam guddal ko mu gudd dana wane maanaam ne alxuraanul karim maanaam lu am ay sew sew la ak rafet rafet yi balaaxa ndax histoire nettali nañ ko fee ci anam gu gàtt bu tënku nettalaat ko fee ci anam gu yaatal loolu lépp rek doo wane rafetug alxuraan ci waxin ak yu ni waaye tom ñetteel bi ci lu tax mm, nettali yi dara répété wu tey mooy suñ borom bu lay nettali ab histoire dafa am lu tax mu di ko nettali nag comme daa tax mu di ko nettali jamono ju nekk rek saa su loolu taxee mu nettali ko maanaam histoire bi ñu lay nettali. dafa am lu tax ñu di la ko nettali loolu saa su ko jaree rek ñu nettali la ko ci gàttal moo tax histoire bi di répété wu di répété wu waaw nga xam suñu borom wax euh, xisay gaa yu baax yi dama koy nettali dama la koy nettali yonent bi saa sallam ngir kon saa su yonent bi saa sallam nekkee ci jamono joo xam ne jamonoy kii la rek yàlla suñu jamono bi suñu borom na ko nettali histoire ngir gën ko doole ak ngir gën ko euh, yokk ak njàmbaat kon loolu mooy sew sew yi tax suñu borom di nettali histoire yi gaa yu baax yi ci alxuraanu karim kon loolu ab tënk la ci euh, laytaay bu ñuy def ci alxuraan ak i jaar-jaaram tafsir nag nekk xam-xam boo xam ne wax naa ci njëlbeen gi ne luñ mat luñ mas a fonk la ko commencé ci jamono yonent bi saa ba suñ jamono ji ñu nekk ndax moo tax nga gis ci saxaaba yi ñoo xam ne euh, siiwe woon nañ xam-xamu tafsir ku ci mel ne Abdullah ibn Abbas woon na ko bu ci mel ne Seydina Ali ibn Abi Talib siiw na ko Abdullah ibn Abbas li muy jàmbaar jàmbaar sax daana wax ne li ma xam ci tafsir ci Seydina Ali laa xamee waaye ku ci mel ne Abdullah ibn Mas'ud siiwoon na ko waaye ku ci mel ne Ubay ibn Kaab xam nañ ko bu baax ci alxuraan karim Ubay ibn Kaab ku ci mel ne Zayd ibn Thaabit wax naa ne moom la Seydina Usmaan jiitaloon ci bi muy dajale alxuraan karim daan ne لأن بوالك عبد الله بن زبير إنه عوام عبد الرحمن بن حارث بن هشام أك سعيد بن العاص بن أمية نيونيو أك من عبد الله بن عمر سيوانا خم خم تفسير لول أكيد كمان عبد الله بن عمر باتي سيوانا كل نيو نيب رك سيوانا خم خم تفسير من بوكو توبي نون لياكي باتي تابعين اي تابعين اي مويت دون صحابي كل من حسن البصري سيوانا كو كل من سعيد بن جبير سيوانا كو كل من مجاهد Mawlaana Ibnu Abbaas siyee woon na ko ku ci mel ne Alqama uh, siyee woon na ko uh, ku ci mel ne Ikrama siyee woon na ko ku ci mel ne Qataada Sudi Daxaak ñoom ñëpp rek siyee woon nañ xam-xam boobu noonu nga koy toppee nag jamono ju nekk rek ba ci jamono ñoom Ibnu Jarir taf Ibnu Jarir nga xam ne uh, maam jamono Tabari laa bëgg a wax nga xam ne Ibnu Jarir Tabari moomu ku siiw la ci xam-xam waaw daanaka nit ñi li ñu xam mooy tafsir Tabari. ibnu jarir ak tabari yi moom nga xam ne euh, boroom xam-xamu tafsir la woon euh, di jàmbaar liggéey ci tafsir loo xam ne daanaka kenn jiitu ko ci noonu ngay wàcce ba ci jamono ñoom xurtu bi di wàcc jamono joo romb rek gis ay kàngam yoo xam ne siiwee nañ tafsir di ko wàcce ba suñu jamono ji bokk na suñu jamono ji ñi nga xam ne suñu mag yi démb yi siiwee nañ tafsir te jàmbaar ci loolu ku wax seex أحمد دم السوكوني على مختلف نبتير بتفسير بمط تدكو دياو نيريني الجامع بين علوم الطائفتين من تفسير بوحمني من نياف كي حاج تفسير بوحمني خمون تريو مكو مسا تعرف تي تفسير نتوان نون تي لين جيساقون آه. دونت انا بران خان خاني إيه، دا نا غيس تي نيوم ني تفسير بن اي نيار ولا ليغ ليغ ني امنا نيو خامني سيو نين توك دي جتاي دي اي تفسير إيه، سوتو بروم خان خاني دا نكران بور تي لين da nga dégg ñu ne tafsir na dañ ko daan boole ci liñ daan jàng waaye nag téewut euh, loolu ci xam-xam yi noonu kon tafsir euh, dañ ko war a boole ci dund gi di ko jàngale di ko leeral doomu aadama kon ci tënk loolu mooy li xam ne moom lañ bëggoon a laytaaye jotaay bu njëkk ci su jotaay tafsir bi mu doon ay bind yoo xam ne day aju ci laytaayal lu aju ci alquran karim ji nga xam ne moom lañ war a tafsir muy téere nag bu yéeme boo xam ne suñ boroom euh, da cee wane xabaax yu du jeex wala ci ne def yi nekkate ñu lottu lañ wala ci ne nekkate ñom kat li ñu mëna wax mëna wax mëna wax bu jëf desee mënu ñu andi lu mëna alquran ta ku le lu ben lu ñaar lu lepp rewon rek ne alxuraanul karim téere la bo xam ne téere bu jóge suñu borom la waye day wane ne alxuraanul karim téere la bu lottal mi suñu borom da wax ci ne nit ak di jema andi alquran ju ben alquran ji duñ ko andi mu mel sax alcorane dafa beuri mu waxaan na buñ ku man ci yenn andi euh, donte fukki sar dong la mu demee misaal sax mu ne fukki sar dafa beuri ku man ci yenn andi yenn sar daa misaal wala ne sax ku man na andi ben aya lolou lepp rek do wane ne alxuraan mojisa la te mojisa bi nga xamay lo loo lo ne lottal nit ñi ñu andi lu mel noonu waye bo xol alcorane nim mu tënkoog ni mu nar ak ni mu toftaloog baat ni mu ràbbaloo yu ni mel munoo gis lu mel ni moom ci ay wax te bokk na ci ay xarbaaxi alxuraan ba tey mooy la ci nekk ci ay xista yoo xam ne yàlla suñu borom ba mu ko nettalee léegi ay ati at te jamono ji ne ñu di ko gis bokk na ci yi nga xam ne nekk na ci alxuraan te wane ne alxuraan ji kat du waxi nit mooy eh, doon gëm doon alxuraan ma doon wax joo xam ne loo ko mën di dégg loo ci doyal. manam lo yag deg yag deg la ci doyal fi do waxi min def mo jëlon diko jang ben yoon maam nit bu bindon ab leetal taxaw nga diko jang jàng di ko bu yag la wax ci soxla wala bu yag la nga commencé ci commencé ko jubanti wala nga bëgg maam nga bëgg sopp wax ji alquran nak loo yag deg dégg day mel wax ji da lay gën dugg dang ci gëna am ay gis-gis yu bes mas la gis dégg ndeysaan suñ sàmbee di wax dan ne alquran li ci yéme bokku na ci di wone ni manam wax du waxi nit moy maanaam boo jëloon ab leetar leetar boo xam ne nitu ko bind nga di ko jàng di ko balaa yàgg maa wax ji soxla wala balaa yàgg nga ne du ko lii mu wax bu ko waxee woon nangam mooy dàq alxuraan nag moom loo boo jëloon ci jëloon lu gàtt rek jàngal ko jàngaat loo ko gën a jàng danga koy gën bëgg euh, kon ci tank yooyu yëpp rek ay euh, leeral la ci alxuraan karim ci njëlbeenu euh, jotaay bi nga xam ne moom la ñu ubbee jotaay tafsir yi muy nag xam-xam bu xóot mo tafsir ta yag ta mën a jën eh, jamono waye li ci ëpp solo rek moy jamono ju nekk dañ ci nekk di ci joxante ay bind tay ñaar suñu borom mu defal ñu ci tawféex nangul ñu liñ ci jotal liggey eh, liggéey te eh, mu doon lo xamne it da way nangu muccal ñu ci ngistal ak ndéggatal ak lepp lu yaq jëf yalla suñu borom mucc ci suñu jëf ji تيرمو دافا ني توفيخ باج اغالكو سي جامو سلام با تامبالي وارك اي يون يون سي بروم مان نكو هو ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله